la lenn dal waay ñawal ombal urleel fabileel bësal pedal taas mbak tasal mbak daj naa ey saateer yow maa woppuloo doo nelaw guddi doo naa hmm? ah, <laughs> ni anniversaire moo koole ko. koole yow ñaata yoon laa la woo. wala yow nekk ci atelier bi chaque jour nga ni nijaay damay dem dëj nijaay damay dem tuur nijaay ngénte du la raw Kole eh, moo tontu de soo yore liggéey jàmbur da nga koy respecté waaye chaque jour nga dem xew xanaa yow lan la tey nag mooy sa dernière baay fii dootoo fi génn waaw falaa demal ba bu beneen ba nga tàgguma rek eh. bis bu ne nga ne dangay dem tey xew suba tuur ginnaaw suba ngénte lol pour lan la eh a a a a la ilaha illallah man day fàtte woon na dana am réunion tey sunu sunu yef yaa ngi waaj di te di Sénégal sunu sunu ngoon nga mi ngi waaj a ñëw comme def na ñaw amul ma ngay dem na nga tëj atelier ba mu dëgër këcc nga dem waaw kay maa ngoog na nga ko tëj de ko de ah ah ren <laughs> bukan nang kota jerek nang kota jerek iyo ajarama mosaptor bawa pulo waay teur bu la lenn Halo, halo, halo. waaw kooku mu ne man la Moustapha Kay waaw waaw nga ne ah waaye yéen itam déedéet waaye tamit moom président buy dem doox wax nit dafay dem dafa xam ndax ñun dañoo lebi paasam déet ah ay magum jëm xëy suba dem ba heure bi nga leen leen amatu ah waaye déedéet waay tamit ah waaye tamit man xamu leen fu ma jëlee sama paas bi beneen yoon danañ ko teel a wax danañ ko teel a wax dañuy bàyyi suñuy liggéey di di di wuyu ci. ah waay déedéet waay wax ni ngeen ne am na réunion am nga xam lu ma gën sonal damaa toog ñawa ñawa ñaw bay bëgg a sama patron lo ñaw mu ne ko dañ doo encaissé moo taxee tey def nga ko eh yow xam nit dañ ne wut ku mat seytaane man ma mat dëm ma xam ah man ah, yow rek ak ah. yow yow rek ci taay loolu mooy jant bi day génn bëccëg. moo tax ma moo wooyee gëmuma ko sax. laa ilaaha illallaah tey damaa pikir ko xut ba peer laa ilaaha illallaah waaw. dem ci diwaan bi. Eh, doo ko gunge toogal. boo tuur bëggee tuur ndox wut pot tuur ko fee. jógal gën a atale ci biti. ñàkk jom. ata xam nga ni yow boo yow boo boo boo amee métier xaj yee ko am de. atale ne si fataay jigéen. amoon ah, man man man galaay mi man galaay mi dama ko war a ray wala man allah. duma ko ma ko wax dara. la waxuma la ñu génn xay am na de. lan lu xew. laay ngi ñëw de. kuy laay. laay machine laay saw. te mu jox la machine yi. laay. waaw moom laa lu ko dal ba muy ñëw tey. Ah, mu ngi nii lu ciy pexe kii jox ma lee jox ma mën a kañ. damal toog. demal nga tok gisoo ma nag gisoo ma rek falaa yam salaamaaleykum ça va na nga def yaa jam ana mustafa dafa sori waaye lu mu guddi guddi dina ñëw alma chaise alma chaise sa patron bandiwul man bi may dóor mom dóorul sama machine yi toog di xoole mayu ma ko dama koo liggéey mënu ma toog presque quatre mois mu war ma jox xaalis di ma dawloo guddeeg bëccëg dina ma fay sama xaalis wala ma jël bakkanam maa ko gën a bandi sax yow man ngay waxal sariya laaj wax ba tey sa patron bandiwul man bi may liggéey moom mi ngi tëdd di nelaw <clears throat> sama xaalis dina ma ko fay ci nii wala ci naa presque trois mois mu may dawloo ci sama xaalis machine yi faruma ko dinaa jël sama bos wala dina ma fay sama xaalis maa la wax ma jox la numéro après ma sœur bu la lenn dal waaye